jigéenu siggi jat na yi bokk ci réseau bi ñoo koy amal muy conférence religieuse bu mag ñu ni kañ la le 29 février fu ñu koy defee ñu ne ah place Mamadou Dia ci Thiès ci promenade bi à partir de quinze heures jigéen ñi nag ki njiital seen responsable seen lideur doomu Thiès ji nga xam ne kenn laajteetu ko ci jomam ak laam ak nangoo liggéey ak jàppale askan bi di monsieur Abdoulaye Dieye ñu woo ci nag ñépp nag kon sous le haut patronage de son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal ak kan ki tëdd njaaxaanaay di yaayu ñëpp di madame Marème Faye Sall première dame. ñi ngi aussi ci suñu marraine bi Ndeye Ndiaye vraiment xam nañu valeur am ñi ngi koy xaar bu baax a baax a femme euh, le réseau des femmes du mouvement Siggi jot na ñi ngi ko fay xaar bu avec impatience ñi ngi ñaax aussi jigéen ñi ñëpp. képp ku ñu limul sa tur fii ngay présidente euh, euh, association di présidente groupement nga yore leket loo mënti yor association ñu ngi lay xaar ci euh, le 29 boobu à 15 heures 30 pile ñu commencé suñu conférence yéen ñi bokk ci mouvement bi tamit te ñi fi teew bu ñu eggee ak ñu ko mën a dégg ñu xamante ne heure boobu vraiment ñi ngi ciy xaar ñëpp. la responsable des femmes ni mu ko waxee léegi tout à l'heure Adja Marème wolof nag nee feccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca mbagg ya ñun jeunesse mouvement Siggi jot na lépp lu ñu ma a woote suñu yaay yi dañ cee nekk jàppale ñu teg ñu loxo bañ am ci réussite donc di woo jeunes yëpp muy góor muy jigéen euh, le 29 février 15 heures wala 14 heures même nañu fekk à la place Mamadou ja ñu jàppale suñu yaay yi du affaire jigéen ñun dañ ko war a def benn sacerdoce xam ne ñun ñoo war a yenu liggéey bi ñun ñoo war a nekk ci organisation bi ñun ñoo war a ranger sièges yi ñun ñoo war a tante tant bi donc ñu ngi woo jeunesse mouvement Siggi Jotna yépp di woo également la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar sunu nawle yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Thiès mais di woo aussi jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi parce que lii ñu woote mbirum diine la jullit yépp lañ ciy woo képp kuy jeune nga nekk Thiès muy jullit di wax ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo le 29 février à la place Mamadou Dia ñu jàppale suñu yaay yi ba cette conférence là nekk une grande réussite ni ko Adja Marème waxee tout à l'heure bis boobu réseau des femmes du mouvement Siggi Jotna dañ ci jàppale ay groupement lu ëpp fukki groupement dañ leen jox ay financement Abdoulaye Dieye le président du mouvement Siggi Jotna teg ci leneen mooy jël benn billet Makka jox ko suñu yaay yi donc ñu ngi ñaan su jour ba incha allah ñun ñëpp ñu mobiliser wu génn teel a solu taaral bis bi ñëw déglu conférencier bi muy El Hadji Idrissa Gueye ñu jàngat fa xam-xam yóbbu ko wasaare ko Thiès am ci ndam Thiès dem ca kanam. kon jërë ngeen jëf dégg nga ni nga xamante ni moom la ko soxna yi waxee ci responsable yi ak nag responsable des jeunes. woo nañu ñëpp bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn bàyyi ñu ñenn na ñëpp dajaloo ñu dalal gan ñi nag la macha allah dalal autorités yi nag dalal ñi nga xamante ni ñoom la président fa yéene yebal tiire bi màkk bi nag ki ci wërsëgam nekk mu dem siyaare ji Seydina Muhammad waaye nag ñu déglu nag ki nga xamante ni mooy le conférencier intercontinental di kan. sëriñ Idrissa Gay su demee bitim réew ak fu mu mën di dem bu nee xaala laaxu xaala rasulillah ña gëmul woon daa di gëm ña gëmoon seen gëm yokk kooku fas yéene def conférence bi kon nag na ko ñëpp teewee bàyyiwuñu nag daayira yi bàyyi ñu jànkatu xasaa yi bàyyi ñi nga xamante ne ñooy taggkatu rasulillah yi bàyyiwuñu kenn kon nag ñëpp teew le 29 février à partir de 15 heures ca place Mamadou ja ci promenade des Thiessois